أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura al araf tey ñuy jël ñaari aaya 101 102 ñaari aaya yooyu ñu ciy jàng ñeenti mbir yooyu ba ca jiitu mooy taqrirul waxyil ilahi wa isbaatu nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li annahu ma qussa min ambi min أنبياء الأولين لا يتلقى إلا بوحي الإلهي ولا يتلقى عن الله تعالى إلا رسول أعد ذلك tey dinañ jàng ci aaya yi saxal gi nga xam ne alquraanu yàlla ji mu ngi koy saxal yónni gi mu yónni yonent yàlla muhammad mu leer kon ne yonent bi ab yonent la yàlla ko tànn ci biir mbindeef yi daal di koy yónni loolu lan mooy dalil bi mooy yàlla ko saxal taqrirul ilahi la yàlla saxal ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yonent la maa ko yónni ñaareel bi mooy moom alquran musta nettali benn nettali ci yonent yu jiitu ya dul dañuy fekk ne dëgg la am na bi yàlla waxee aadama wax nuux wax huud wax saalix wax luut ba ci muhammad alayhi salaatu wasalaam dañuy fekk ne xabaar yooyu yëpp lu am la lu sax la lu dëggu la kon dëgg-dëgg alquran loolu day wane ne dëgg la waaye yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam day wane ne dëgg la yàllaa ko yónni beneen bañ ciy jëlewaat mooy ndeke ab yonent yàlla du wax ak moom lu dul ci wax yu illaa bi waxyil ilaahi ab yonent saa yu yàlla waxee ak moom rek loolu mooy nekk wax yu wax yu day nekk direct diggante yàlla ak ab yonent wala yàlla ak malaayika ab yonent alquran ji yàllaa ko jox jibril jibril indil ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam muy wax yu bu mu ko wax yu loolu mu leer naññ waaye yàlla du wax yu kenn lu dul ab yonent lu dul lenn ci ñu nga xam ne moo leen waajal wax ak ñoom te ñu mën leen a lim amma yonent sunu borom subhanahu wa taala wax gi muy wax ak moom loolu wax yu lañ koy tuddee mooy yàlla moo koy dee loolu nag moom mooy nekk Alquran wala mu nekk Tawraat wala mu nekk Injil wala mu nekk Zabour bu fekkee Zabour la kàddu ya fa nekk yàlla moo ko wax ak yonent yàlla. Daawud alayhi salaam su dee tawraat la kàddu ya yàllaa ko wax ak yonent yàlla Muusa alayhi salaam bu dee injil yàlla moo ko wax ak yonent yàlla Isa alayhi salaam su dee Alqur'an yàlla moo ko wax ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam loolu dañ koy jàng tey mbokk jullit yi waaye dañuy jàng wujudul bayaanaat. مهما كانت قرية واضحة غير كاف في الإيمان من لم يشاء الله هدايته dañuy jàng tey leeral gi ñu yàlla di leeralal ak lu mu mën a nekk dëkk yi nga xam ne yàlla alag na leen lu mel ne nitu yonent yàlla nuux lu mel ne nitu yonent yàlla huud yëpp da ngay dégg yàlla mu ne ab dëkk la boo xam ne maa fa yónni woon ab yonent waa dëkk ya ba ñu lànkee yàlla ne na sama mbugal dalee na dal waaye di préciser dëkk rek du doy ci ngëm yàlla man dëkku sàngam laa dëkk rek dëkk boobu ko fa dëkk rek àjjana nga jëm wala kuñ fa suul àjjana nga jëm loolu du doy loolu du doy ci ngëm yàlla man diwa ma jur loolu doyul ci ngëm yàlla man diway sama way jur loolu doyul ci ngëm yàlla man diwa ma jàngal loolu doyul ci ngëm yàlla man diwa ma yar loolu doyul ci ngëm yàlla bu leen fàtte ne jibril xam ngeen jibril ci ñi gën a foor ci malaayika yi la bokk wala sax ñu ne moo ci gën a foor yàlla di tagg jibril ci quran naan zi quwatin inda zil arsh makinin mutain thamma amin terewul jibril yar nit nit kooku dem safara kon nit jur nit amul importance nit yar nit amul njëriñ yonti yàlla nuux doomam ak jabaram ñi ngi safara luut jabaram a ngi safara Muusa mbokkam a nga safara Muhammad bàyyi taxam a nga safara kon nit jur nit amul njëriñ li am njëriñ mooy yow ndax yaa ngi ci santaane yàlla yow mii sunu borom daf ñuy wax ci alxuraan loo xam ne buñ ko déggoon rek ñun ñëpp sunu xel day set sunuy bët leer ñu xam fu ñuy teg sunu tànk yàlla daf ñuy nettali ñaari jigéen jigéen ji jëkkëram ab yonent la mu dee dem safara yàlla di ñuy wax jabaru firawna dee yàlla yóbbu ko àjjana kan ma waroon dem àjjana bu doon xel la ñuy jugé xel dama leen a laaj bu doon xel kese la ñaar ñii ku waroon dem àjjana ah waaye jabaru firawna moo dem àjjana wala daraba allahu masalan lillazina amanu wala lillazina kafaru boo jëlee ba ca kaw imraata nuuhin wa imraata lut kaanata taxta abdayni min ibadina salihayni fa xaanataahuma yàlla nee na ñoom ñaar li ñuy baax baax falam yugniya anhuma min allahi shay wa qila duxulu naar ma addaxilin te kokkat ay jabaru yonent lañ firawna daa bon ba kenn du ko tuddee doom wala Sénégal am na ko fi tudd firawna damay laaj jabaram xoolal ma nga àjjana ma ngay wax yàlla rabbi ibni lii indaka baytan fil janna wa najjini min firawna wa amali wa najjini min qawmi zalimin te pourtant jëkkëram yéeféer la waa léegi kon lu tax jabaru yéeféer dem àjjana jabaru jullit dem safara c'est parce que jabaru yéeféer bi dafa nekkoon ci li neex yàlla jabaru jullit bi di dangiiral di def lu ko neex day dem safara loolu moo leen doon ne yàlla du du su yàlla doon xool kii ku ko jur wala kii kuy jëkkëram wala kii kuy doomam wala kii kon jabaru fira jabaru nuux fu mu jëm kon jabaru lut fu mu jëm kon baayu ibrahima fu mu jëm xoola ibrahima yàlla mu ne wattaxaza allahu ibrahima xalila ibrahima sama xarit la allahu akbar ku wax loolu ku wax loolu ibrahima waxul yàlla sama xarit la de yàlla moo ne ibrahima sama xarit la du benn de ah du benn yow nga nekk xarit Macky Sall ak Macky Sall nekk sa xarit du benn de ban mu ëpp Macky Sall bëgg la yow nga nekk xaritam boobu moo ëpp waaye yow mi nga bëgg ko amul benn njëriñ waaye moom bu la bëggee miir bu nekk nga jël ta président son excellence day kontaan bu gisee sa numéro gaaw laa jël wala loolu nag mooy ibrahima yàlla mu ne wattaxaza allahu ibrahima xalilan ibrahima man yàlla maa ko jàpp xarit maa ko jël xarit man maa ko tànn def ko sama xarit waaye ana baayam ma nga safara kon yi ñuy woote ci Sénégal moo amul njëriñ moo amul bopp amul genn ku yebo jaamu ji yàlla waaw ku yebo jaamu ji borom bi loolu laal mooy dëgg waaye toog di xaar naan man dañ may rammoog yow tee ngaa góorgóorlu nga rammu loolu mooy wax ji toog di rammu man dañ may rammu yow demal nga góorgóorlu nga jaamu yàlla ba yàlla wala leen rammul loolu moo ëpp importance sëriñ bi dafa jaamu yàlla ba yàlla kontaan ci moom defal ko xéewal yow tamit jaamul yàlla waaye boo waxee ñu ne diw kenn mënul mel ni moom wala kii lu mu am kenn mënu ko am bañ a am moom mu fekk ay nit yu baax mu topp leen ba mu am ñooñu lu ñu am yow nga ni kooku kenn mënu koo topp lu tax julli dafay jóge damay laaj koor dafay jóge azaka dafay jóge jàng alxuraan dafay jóge naafila guddi dafay jóge gaa yi baaxoon lan moo leen baaxal du lii ku ci jaar baax ku ci jaar baax waaye bu fekkente ne ñee bu ñuy julli guddi yow nga nekk ci tefesu géej gi di cëppi cëppi ñee bu ñuy jàng alxuraan yow ngay liir ay journaux wala ngay liir pays mi ah ñee danañ la raw sikk nekku ci sooy topp nit bu teg bu teggee tànk da ngay teg tànk waaye maa ngi lay topp maa ngi sa ginnaaw te yaa ngi toog ñoo ngi sa ginnaaw de te yéen a ngi toog loolu toppoo ko sooy topp nit bu demee da ngay dem topp ko su duggee ci jàkka ji nga dugg su duggee ci daara ji nga dugg suy taxawee guddi dinaa fi la nga jóg taxaw waaye fasaale ma rek fasaale ma fasaale ma dégg nga nag ma fasaale boobu wóorul kon yàlla daf ñuy leeralal bu baax pour ñu xam ne ngëm yàlla tabaraka wa taala moom la nu sant waaye du ay yii ñuy woote wu tey yàlla daf ñu leeralal nag yàlla ku mu jubalul du jub yàlla nu yàlla jubal moo tax sànq ma wax leen ne yonent bi bëggoon na trop baayam jub waaye ba mu dee yàlla yonent bëgg a ñaan ndeysaan yonent bi am lu ko métti yàlla da ko duut baaraam ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow doo jubal ku la neex yàlla mooy jubal ku ko neex yonent bi bëggoon na trop ngéeju woon na bàyyi taxam dugg aljanna ba tax mu naan ko waxal yaa am qul laa ilaha illa allah kalima wahida benn baat mbokk yi bu ñu mënee avancé ñeneen ñi doog a ñëw dugg bu ñu mënee puus ñu toppante waaw bu ñu mënee puusante incha allah ñeneen ñi dugg incha allah su amee ñu tëdd ñu yee leen boo amee ku bëgg a tëdd rek mën ngaa yéeg ci kaw ñu bàyyi espace bi ak ñu bëgg a tafsir sunu borom daf ñuy jàngal mbokk yi mu ne bayaan yi ñuy def mahma kaanat qawiya wa waadiha gayru kaafin fi l iman li ñuy def nii bayaan yi ñuy def nii lu mu leer leer leer leer leer leer lu mu dëgër dëgër du doy nag du doy ci ngëm yàlla de ngëm yàlla moom foog ñu am ko waaw ngëm yàlla foog ñu am ko waaye nañ xam ne suñu amee ngëmit yàlla ku mu neexul ngëm gi dugg sa xol du dugg sa xol sànq maa ngi doon wax ne jibril yar na nit mu dem safara firawna yar nit mu dem àjjana jabaru firawna dugg àjjana jabaru nuux jëm safara jibril kan la yar mu dem safara mooy Moussa Samiri Moussa Samiri jibril moo ko doon nàmpal ci ay baaraamam ba mu nekk mag mu dee dem safara Moussa kan moo ko yar firawna mu dee yàlla def ko yonent mu dem àjjana kon gis nga xoolal jibril ni mu toll kon mbir yi du ku ko jur ku ko yar fu mu juddoo nu mu sant tey Sénégal am na ku lay nuyu nga ni ko nangam rek day simi mbaxaneem simi ay lonetam simi dàllam est-ce que sant rek nga ko wax lu sant amul njëriñ jaamu yàlla moo am solo nekk jullit moo am importance loolu la ñu yàlla di wax nan nekk ay jullit nan gëm yàlla nan am imaan suñu xol yi ñetteel bi ñuy jàng mooy al muminu man amina fil azal wal kaafir man kafara fii al mumin ku gëm yàlla man mooy ki nga xam ne amina fil azal ca ngëm ca kaw asamaan ca azal yàlla defoon na ci moom ngëm su wàccee ci suuf day gëm waaye ca kaw ku yàlla ne woon kii yéeféer lay nekk su ñëwee ci suuf su ko ab yonent juróon sax yéeféer lay nekk moo tax boroom xam-xam yi naan isal mar'u lam yuxlaq sa'idan faqad xaaba man rabbaahu wa xaaba almu'milu fa muusa allazi rabbaahu jibril kafir fa muusa allazi rabbaahu firawna mursalu nit ca alamul arwaax ca azal su ko yàlla bindul ci ñu gëm yàlla du gëm yàlla bu wàccee ci suuf moo tax ndekk mbir yi ca kaw la yàlla moom léegi nag nit dina wax ne waaw man kon nit ki su gëmul yàlla kon kay moom deful dara tànnalul boppam ah ah kay am na tontu dafa am machia lu ñuy wax machia mooy coobarewu machiatullah ak iradatullah coobarewu yàlla ak namm nammam ak qadaullah ak dogalam mu nekk ñett ndogalu yàlla bëgg-bëgg yàlla ak namm téyfam moom yàlla tabaraka wa taala moonu moom wala lu ko neex mu def nu bu ko neexee mu dugal ñu aljanna kenn mënu ci dara su ko neexee mu dugal ñu safara kenn mënu ci dara parce que moonu moom lu ko neex lay def ci ñun faalun lima yurid te laa yusal an yaf an amma yaf al wahum te yàlla du def ba pare ñu naan ko lu tax nga def damaa am gan ma ñëw ci kër gi daan ne xale yi jàppal leen ma ginaar gi su ma reyee ginaar gi toggal sama gan damay am bakkaar dañ ma yóbbu police su ma baxalee nen yi teg ci nag su ma neexee ma ñëw ci kër gi daan ne xale yi ana nen yi ñu ne nen yaa ngi ni may nañ omelette ñu ndogu wala ma bàyyi ginaar gi wala su ma neexee ma ñëw jël ginaar gi kese bàyyi nen yi su ma neexee ma boole ñaari ginaar yëpp su ma neexee ma jël bu góor bi kese bàyyi bu jigéen bi yàlla noonu la ci ñun lu ko neex mu def bi nga moomee ginaar gi loola neex nga def waxal dëgg rek ah wala ah léegi yow nga bëgg yàlla yow nga moom ginaar gi bu la neexee nga baxal ne nii bu la neexee nga omelette bu la neexee nga rey ci doom yi ah papa jeeg yaay ji di la gis yaa ngi nii taxaw xar yi nag xar mi nag bu la neexee nga rey borom kuy kuyel kuyel gétt gi kan moo la yóbbu police bu la neexee nga rey bu jigéen bi ci gétt gi bu la neexee nga rey doom yi bu la neexee nga dind ci meew mi bu la neexee nga maye bu la neexee nga saraxe bu la neexee nga jaay ku lay laaj lu tax nga def dara ci xar yi su kenn ne eh yow li ngay def nga ne ko waay waay yow li ci sa yoon mu ne la non lii xar la waroo ko jaay nga ne ko waay du maa ko moom lu ci sa yoon sax waay waay ah yow yaa ko moom loo neex nga def yàlla ne la yow it maa la moom lu ma neex nga def nga ni déedéet ah. loolu mooy nammuteefu yàlla du ko neex mu def iradatullah te lu mu def kenn du ko ne tax nga def parce que moo ko def waaye xoola loolu yëpp nga xam ne yàlla moo am sañ-sañ ci ñun lu ko neex mu def te du ko def wala yarda li ibadihi al kufra yàlla nee na man nag li may loolu yëpp bëgguma ngeen nekk ay yéeféer damaa bëgg ngeen nekk ay julit pour ngeen dugg àjjana wala yarda li ibadihi al kufra moo tax comme bëggul ñu nekk ay yéeféer mu yónnee ñu ay yonent 124 000 mu yónnee ñu ay téere pour yonent yooyu buñ ñee nañ ñu ne yàllaa ñu yónni ah lu yàlla wax ñu génne la téere bi ne la liiral bal sax ñenn ñi duñ ci yem dañ naan dañuy laaj al mu'jiza ay kéemtaan yàllaa la yónni ñu ne waaw lu mu wax nga ni ah nee na ngeen gëm mu ne loo yow lan mooy may wan ne yow mi yàllaa la yónni ana preuve yi yenn saa yi benn waaye ñëw ne la lu tax nga droité fii rek waa ji daa civilu nga ni ko waa mais waaw lu tax du ma fi droité mu ne la non amoo droit ngay wax rek mu daal di ni pochette bi ne la nga ne ah maa ngi jéggalu de jéggalu jéggalu la droite oto bi waaye saaral jéggalu rek ñëw waxatoo lu tax de lu tax lu tax parce que dañ laa woon benn carte bu lay wan ne ah kii di wax ak yow am na droit wax ak yow de te ba mu waxee ak yow déglu nga ko yonent yi tamit noonu la dañu ne yàllaa ñu yónni nit ñi ne yow yàlla la yónni lu mu wax anamu nga ni téere ngi ni ñu ne téere bi doyuñu montagne bii boo waxee boo ci génnee luy wane na yàlla la yónni ñu gëm la ku mel ne saalax mu jo mu joxoñ montagne bi montagne bi xotteeku benn gëléem génn gëléem gi dafa ëmb daal di tëdd ci biir daal di jur doom doom jooju daal di sax benn lettre ñu bind ci laa ilaha illa allah saalih rasulullah mu ne maa kon nag yàlla ma yónni gaa yi ne ah dëgg la de uu kii garaaw na ne waaye nag am ngeen problème yéen a laaj mujiza ñëw na na ngeen xam ne teen bii ci dëkk bi su ngeen naanee tey suba da ngeen di woor dina gëlëm gi naan moog doomam yéen a ko laaj mujiza firawna Moussa ñëw na ne ko yàllaa ma yónni mu ne ban kéemtaan la la jox mu ne ko sama yat bii mu ne ko yat man kay am naa yat mu ne ko yat bi ak yat yee du benn de lu tax du benn Moussa sànni yat bi fa iza hiya sobaanun mubin mu nekk jaanu ñàngoor bu raay songu leen gaa yi daw mu daal di koy teewaat daal di koy delloowaat yàlla mu ne sanuiduha sirataha al ula ma delloowaat ko mu nekk yat ko yàlla mu yónni de mu ne ko loo rek la jox mu ne ko des na mu daal di dugal loxo bi ci biir poqataan bi mu génne ko fa iza hiya bayda lin nazirin ku mu ko def nii rek nga naan nii lumière bi dootoo gisati mu ne ñaari preuve la yàllaa ma yónni lu ngeen wax Firaaw ne na ko bàyyil ma gis nit ñi bàyyil ma gis sama conseil yi ma génn tont mu daal di dugg ñu ne ko innahu saahir jabarkat la jabarkat la ole ñu gëm kon kéemtaan yi nit ñi ñoo koy laaj yàlla indi ko waaye yàlla boole ko ay téere loolu yëpp pour lan pour nit ñi gëm xam ne yonent yi yàllaa leen yónni loolu yëpp pour lan pour mbokk yi ñoo am ay preuve yu leer nañ nañ nañ nañ luy wane ne yàllaa leen yónni ñun tamit noonu lañu amee fii ci ñun luy wane ne dëgg-dëgg yàlla moonu moom lu ko neex mu def nu yónni na ay yonent pour yonent yi ñu déggal leen pour bu ndee dugg aljana loolu dong moo tax yàlla yónni yonent yi pour ñu dugg aljanna du leneen yàlla bu ko neexoon mu ne jaamu leen ma suñ ko jaamoo baax na suñ ko jaamul xam na ku nekk boo dee mu yóbbu la safara waaye wala yarda li rabbihi li ibadihi al kufra waaye mbokk yi ku yàlla baaxal ca azal soo ñëwee fii da ngay baax ku yàlla bonal ca azal boo ñëwee fii da ngay bon loolu nag hikma borom bi tabaraka wa taala la hikma xereñam la moom moo tànn moo bind moo tànn ne ñii dañuy baax mu bind tànn ne ñii duñu baax mu tànn bind ne ñii suñ gisee yonent dañuy baax buñ gisul yonent dañuy baax mu tànn bind ne ñii bu yonent ñëwee dinañ baax mu tànn ne ñii même bu yonent ñëwee même bu téere ñëwee même bu ñu waaraatee même buñ demee ba ëllëg ba àllaaxira duñu baax mu duñu musa baax ndax lan yàlla moo kaste seeni xol comme ay xeer summa qasat qulubuhum min baadi zalika fa hiya kal hijaara aw ashaddu qaswa ñooñu duñu baax mukk beneen ba ñuy jàng tey mooy at tabu fi l qulubul kafirin yéeféer yi yàlla moo kaste seen xol kan dafa am sabab nag yàlla jékki-jékkiwu rek kaste xolu yéeféer dafa am lu yéeféer bi def ba yàlla tëj xolam moo tax boo ne koo yàlla boo ko nee yonent soo ko waaree loo mun a wax du dégg da leen yàlla musal ci xol bu ñu bu kaste xol ku ñu kaste sa xol jeexal nga waaye yéeféer yi yàlla moo kaste seeni xol waaye preuve yuy wane ne yàlla yàlla fees na dell ci àdduna preuve buy wane ne yàlla am na preuve buy wane ne yàlla lañ war a jaamu preuve buy wane ne ñun ay jaam lan loolu leer na ci kaw suuf ku nekk saa yoo xëyee di nga gis preuve buy wane ne yow jaam nga yàllaa la fi indi te da nga ko war a topp mu doy la mu bañ la doy xoola sa bopp rek ku nekk ci ñun borom bi tourné loo nañu suñu bopp suñu xel mu nañu wa fi anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun xanaa yéen xoolu leen seen bopp bu dee da ngeen a bëgg a dalil luy wane ne man maay yàlla dalil bi kay doy na seen bopp ku nekk xoola sa bopp nit dina ne man lan lay xool sama bopp keneen dina laaj ci biir jàkka ji waaw man de maa ngi nii toog waaw naka laay wane ne ci sama fii ma nekk ni yàllaa ma bind naka laa koy xamee noo koy xamee pertal benn bët fan ngay demaat ba amaat bët bi bët bu mel nii laa de bii perte ko dugal fu la neex demal États-Unis demal Angleterre demal Canada demal Amérique di nga amaat bët bu mel nii ah dinañ ne defal bët de waaye nu muy mel per lay nekk dootoo gisati du gis de dafay nekk nag naan nii ay doo gis perte ko rek beneen bi mooy bët bii benn bii kese su benn waaye bu amul woon bët ñëw ne la jaay ma sa bët bi 2 milliards da nga koy jaay wala doo ko jaay kan ci ñun fii mooy jaay benn bëtam ko amul bët nay gëj la xam benn waaye ne la yow am nga ñaari bët nga ne ko waaw mu ne man xam nga awma dara nga ne waaw mu ne ma yor naa 2 milliards kiste vënd noonu la tudd siva vënd woykatu américain bu gumba woon bi da doon wax ah right right Charles da doon wax ne man damaa gumba musuma gis sama yaay ak sama soxna ak sama doom képp ku ñëw fexe ba ma gis leen ñoom ñett ma gis leen nii mu ne sama xaa alal bi laay dagg ci digg bi nga jël lii ma jël lii ku fexe rek ma gis benn ma gis sama yaay nu mel ma gis sama soxna ma gis samay doom mu ne dinaa te multimilliardaire la woon mu ne damay xaaj alal ji ci digg mi nga jël genn wàll gi nga allahu akbar benn bët benn bët ah xoolal bët bi li ci yàlla def pourtant gaa yaa ngi fi de jàng nañ lu ne lu tax mënuñu defar bët fan ngeen gis ci Sénégal fu ñuy defaree bët wax leen ma ko ah kon dem leen États-Unis bokk fan ngeen fa dégg fu ñuy defar bët su nit pertee bët foofu lay dem allahu akbar yàlla lim def ci nit kenn mënu ko changé soo mënatul dégg terminé soo mënatul xool terminé soo mënatul wax ah allahu akbar xoolal sunu borom say rein bu yàqoo gars yi nañ lay defar rein déet dañuy jël rein wu keneen indil la waaye defaruñu kay dañuy dem daggi reew keneen indil la ah allahu akbar xoolal sunu borom ni mu defaree nit lan la ko defaree yàpp ak ndox ah ak deret ndox a ngi fi yàpp a ngi fi deret a ngi fi jamal nga jël paanu ndox paanu yàpp nga jaxase ko nga dugal ko sa biir paan sa rollal nga takk ko nga ne day nekk yàpp day nekk nit nga dugal ko sa rollal nga toog boo toogee une semaine génnewoo ko néeg bi di nga xam ne yow doo defar nit pourtant yàlla nee na loolu laa jël defare ko nit de min ma in mahin fa jaalnaahu fi qararin makin ila qadrin maalum fa qadarna fa ni'mal allahu akbar moo tax mu ne waylun yawma idin lil mukazzibin xurwa ca safara ñeel na ñiy weddi man yàlla li ma def allahu akbar gis nga la mu ci teg waylun yawma idin lil mukazzibin wax na dëgg xoolal lii rek yàlla def bind la ci ndox génne ndox mi ci góor dugal ko ci jigéen ndox la woon ndox mu ne min ma in mahin ci suratul insaan mu ne lan hal ata ala al insani hiinun min ad-dahri lam yakun shay'an inna xalaqna al insana min nutfatin foofu mu ne lumbu deret am saaj bu ñu jaxase ak ndox jaxase ko ak ay cellules cellules yooyu moo tax boo xoolee nga gis suñu waxee nga dégg soo soo soo dugalee dara sa gémmiñ nga xam ne dafa saf wala dafa wex wala dafa forox wala dafa lewet wala dafa neex cellules yi allahu akbar jalla jalaaluhu soo tegee sa soo tegee sa làmmiñ bekk sukkar nga yëg ne dafa neex nga teg ci kaani nga yëg ne dafa saf nga teg ci jaxatu nga yëg ne dafa weex nga teg ci nawe nga yëg ne dafa lewet te yooyu yëpp kat tusqa bi ma in waahid benn ndox la ko yàlla roosee benn ndox benn tool benn ndox kaanee ngi nii jaxatoo ngi nii ah màngoo ngi nii lingoma ngi ne ah lana ngi ne yooyu yëpp bokkuñu façon te benn ndox lañ leen roose wala wala du benn ndox lu tax bii saf suukar bii forox bii wex bii saf bii neex lu tax lu tax kan la allah subhanahu wa taala mu ne yëpp tusqa bi ma in wahid benn ndox lañ koy roose te dafa wuute kon yàlla moom mooy yàlla wan nañu bis bu nekk luy luy tax ñu xam ne yàlla mooy yàlla wan nañu loo xam ne bés bu nekk dañuy xam ne dañu war a jaamu yàlla war ñoo jaamu kenn kudul yàlla ak ku nu mën a topp nag ak lu nu mën a def xam ne yàlla rek mooy yàlla waaw ndeysaan loolu tukulóori naan allah ko hulaa ko foof ngeen baal ma gada ko caggal heedata ñu dégg tukulóor xam nañ loolu ma wax ko allah hulaa hulaa ko foof to yehirte laddete ko caggal tan wonata walla ma ar yeeso o metta arde yeeso ko caggal tan o haadata ko caggal tan o wonata wona ko noon wiɗon lu nu ragal ragal ragal yàlla olof yi nee nañ taat ginnaaw rek lay nekk duñ ragal duñ ñëw duñu am iman mukk ba taat ñëw ci kanam ngeen baal ma ci ginnaaw rek lay nekk gis ngeen yàlla yàlla li mu def kenn mënu ko changé nopp yi naam ko ko changé mu ne man bugguma sama nopp nekk fii waaye yàlla yow yàlla yow lu tax ngay def nopp yi fii non man xam naa feneen fu gën a garaaw fu muy nekk nga dem hôpital nga ne dindil leen ma nopp kan moo bëgg ñu dindi noppam fii ci jumaa ji changé ko feneen nga yëkkati loxo kenn ku bëgg ñu dindi bakkanam bi fi mu nekk ñu defal ko ko feneen pourtant da ngay tabax sa kër maçon bi wala menuisier bi wala peintre kat bi mu ñëw def dara nga ne ko non fenêtre bi fii laa bëgg mu nekk ah bon mu ne woy bunt bi fii laa bëgg mu nekk ñu ne woy nga ne ko lal yi fii laa bëgg ñu nekk ah prise prise courant bi fii laa bëgg mu nekk télé bi fii laa bëgg mu teg ah yaa yaay wax de waa ji defar ba pare nga ne ko non non non non fii baaxul yow tamit fii nii dafa jege fenêtre bi waa ji dugalee loxoom rek day rocc ci télé bi yóbbu ko fi nga koy teg mu ne ah bon daal di changé léegi nag ñun ñoom ñu ngi nii toog boppa ngi nii bët a ngi nii bakkan a ngi nii gémmiñ a ngi nii sikkim a ngi nii loxo yaa ngi nii ndeyjoor càmmoñ tànk yaa ngi nii biir baa ngi nii lépp a ngi nii ku bëgg ci ñun ñu changé ko bosam na yëkkati loxoom mu ne man bëgguma bii fii la war a nekk damaa bëggoon sama loxo yi ñu def ko ci sama bopp bi saxalal ma ko fii wala damaa bëggoon sama bët yi ñu def ko benn bët rek ñu defal ma ko fii mu nekk benn bët bu ngand kon boo génnee ñu ne dëmm la kii dëmm la yii kii dajjal la très bien wala sama noppi damaa bëgg yàlla ngandalal ma ko ba bu may tëdd ma lal benn bi bu may sangu ma sangoo benn bi allahu akbar billahi alazim nii yàlla def la te yàlla nee na boo xooloon sa bopp rek gis ma man waaye duñ gis yàlla parce que xooluñu suñu bopp wa fi anfusikum afala tubis xanaa xoolu leen seen bopp ni ma leen bindee bind bu rafet yow booy lekk fi mu nekk nii da ngay attablé da ngay dox ba ngoon nga ñëw sa soxla ne la kaaw mi gay nii kum taari ndi yaa mu addu mu indi table teg ndeysaan indi la kuddu yi teg indi la fourchette indi la lépp tegal la paaka tegal la fi mouchoir ndeysaan pour doo taq nga raxasu ba set wala nga jël say kii di lekk bismillah allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu zahaba zamau wabtalat al uruqu wa sabata al ajru insha allah ñu commencé bismillah xar bi moom buñ ko tegalee ndogu nu muy def xar bi buñ ko tegalee lekk nu muy def lu muy lekkee gémmiñ ginaar gi buñ ko tegalee lekk lu muy lekkee gaynde buñ ko tegalee lekk lu muy lekkee yow nag ndeysaan da ngay attablé toilette ba mu rafet di lekk wa amma bi ni amati rabbik tey boo amuloon loxo nag ndeysaan benn cheikh Arabie Saoudite nee na day julli rek mu sëlmalee mu xool ndey jooram mu gis ki mu dendal amul ay loxo waa ji mu dendal amul loxo nee na ñu julli pare moom mënatul julli nee na mu jaxasoo ndax bu ñu kàbbaree waa ji du yëkkati loxo bu ñuy rukoo waa ji nii rek lay def bu ñu sujootoo waa ji day dem teer sujoot bu ñu jógee mu jóg seex bi nee na ma jaxasoo xamatuma lu may def mu ne ñu sëlmal ma bëgg a wax ak moom rek bi mu sëlmalee dem na mu ne ma wër jàkk jëpp gisuma ko mu ne ma ñibbi mënatuma mënatuma def dara sama xel mu ngi naan waa kii suy lekk nu muy lekkee waa kii bu demee toilette nan lay laaboo nan lay defaroo boppam kii su génnee nan lay jàppee kii nan lay solo yëre kii seex nee na seex bi nee na sama guddi googu yàqu na ndax xamatuma lu may fu ma gëmm rek waa ji laay gis mu ne deuxième jour bi ma ñëw rek toog ma gis ko muy dugg ci jàkka ji rek ma jóg attaqué ko ma ñëw nuyu ko toogal mu toog ma ne ko sa mbir def maa jaaxal yow lii lan moo la ko teg waa ji ne ko yow yaa jaaxle de man jaaxle ma lii maa ngi ciy sant yàlla lii bu ma dalul woon du ma mokkal alxuraan du ma nekk jullit du ma ñëw fii tey fi may gis ni borom alal laa woon lu ma bëgg rek day am lu ma bëgg da koy am mu ne ma accidenté waaye boobu jamono yi xaw ma yàlla lu ma neex def mu ne bi ma accident yi ba ñu dagg sama loxo yi laa toogaat nag ma ne ah ndeke yàlla am na mu ne ci loolu laa delluwaat ci sama diine ci laa mokkal alxuraan moo tax tey jii ma nga gis ma ni umra ma ñëw di umra si amul umra buy ñëw lu dul ñëw naa moo tax yenn saa yi yàlla teg la nattu pour lan pour nga dellu si pour nga dellu si waat ci yàlla mu ne ko waa man loolu jaaxaluma de ama mu jaaxal yow nooy lekkee mu ne ko buñ paree ma invité la restaurant nga gis ni may lekkee da ngay gis ci internet bi jigéen boo xam ne ñaar tànk yi lay dawale oto jigéen boo xam ne ñaari tànk yi benn tànk bi lay peñewoo tànk bi ci lay kuus doom bi tànk bi ci lay toggee ku kooku kooku tamit xoolal seen tànk yi comme loxo ni ngay utiliser sa loxo ci loo bëgg gis naa ci koo xam ne directeur la tànk yi lay signé boo ñëwee day jël big bi toog signé def bind chèque bi taraf taraf gaa yi jël yóbbu tànk yi lay liggéeyee gis nga yàlla su la xañee lii rek may la lii allahu akbar loolu gaa yi naan yàlla du tëj bunt tëj fenêtre mukk su tëjee bunt bi day ubbi fenêtre bi tëjee fenêtre bi day ubbi bunt bi xoolal tey ku amul loxo kooku dundam est-ce que dina neex gaa yi dañ naan dundam du neex waaye xoolal ñooñu ni leen yàlla def amuñu ay loxo waaye lépp boroom loxo yi di def ñoom dañ koy def am nañ ay jabar ñoo ngi dawali oto ñoo ngi liggéey ñoo ngi def lépp lu ñu bëgg a def def ko kon yàlla la il faut ñu gëm yàlla dellu suwaat ci suñu boroom jalla jalaaluhu balaa muy kaste suñu xol yi yàlla li tax mu kaste xolu yéeféer yi mooy yéeféer yi ñoom ñoo tànn kéeféer moo tax yàlla kaste seen xol sababuhu mu ne ixtiyaaruhum lil kufri wa charr wal fasad wa israaruhum ala zalika nit bu tànnee kéeféer ñu ne ngëm yàllaa ngi ni nga ni man bëgguma gëm yàlla ñu ne lu baax a ngi ni nga ni man bëgguma lu baax man lu bon rek laa bëgg ñu ne diine ngi ni nga ni bëgguma diine yàlla day kaste sa xol ndax yow yaa tànn mbon yaa fi fekk yàlla daganal ndox araamal sàngara nga ni man bëgguma ndox sàngara laa bëgg yàlla daganal yàpp ne nag dagan naa lekk bàyyi leen mbaam nga ni man bëgguma laa yàppum nag yàpp mbaam moo gën a saf loolu ngay dégg fii julli di wax naa ne yàpp mbaam dafa saf de xanaa di ngeen ko lekk ki naan yàpp mbaam dafa saf xanaa da koo mos yàlla ne carte araam na ñu daal di koy tànn lépp lu yàlla ne araam na ñun ñu tànn lool nga gis ci xeetu yi ñu ko tànn ñooñu tànn lool nag sikk nekk yàlla day tëj seen xol ndax ñoom ñoo ko tànn waaye boo tànnee ngëm yàlla boo tànnee diine boo tànnee lu baax sa xol day féex sa xol day ubbeeku sa xol day set mbokk yi ñaari aaya yooyu li des ci sunu ngoon gi loolu la ñuy jël mooy tilka alqura naqussu alayka min anbaiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع الله على قلوب الكافرين كذلك كذلك نطبع الله على قلوب الكافرين وما وجد كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين بارك الله فيك جزاك الله خيرا sunu borom mu ngi wax ak yonent bi alayhi salatu wasalaam yuxaatibu rabb taala rasuluhu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi wax ak yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tax yàlla di wax ak moom mooy ziyaada ala taalim li kamali lhidaaya fa innahu tasliya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mimma yulaaqi min salfi almusrikina wa inaadihim wa juhudihim yàlla day wax ak yonent bi di ko xamal pour dalal xelam ndax dafa metti yàlla yónni la nga nekk ab yonent nga ñëw di jàngal ay nit nit ñi fetteer lu lànk taxaw fële nga naan leen yàlla nee na ñu naan la waay waay saay boo dee yàlla tawal ay doj quoi boo dee yàlla tawal xeer loolu nga dégg waa Sénégal di wax ngay taxaw nit ñi naan leen yàlla nee la ñu naan ah man yàlla ñun diw la ñu àndal ngay wax sa gars yi ne waay yuuxu leen waay ku àndal ki ñu àndal lu la neex la gars yi di tëb inna lillahi wa inna ilayhi ndeysaan suñu benn oustaz dafa dugg ci jàkka ji fekk gars yi naan la ila ila la ila la mu ne asalaamaaleykum bu leen wax a la ilaha wax leen la ilaha gars yi dem benn waay waay waay wax la waay la mu ne déet wax la waay a la ilaha illa mooy lan mooy ndax yàlla am na allahu akbar pourtant ñoom dañoo bëggoon wax yàlla am na mais lañ ci yokk te bokk ci mooy hamza bi hamza bi istifham la ñu naan a la ilaha illallah e ndax yàlla am na nga nekk ci néegu yàlla naan ndax yàlla am na kooku def loolu xoolal xamul de ñu koy wax mais day fetteerlu ay way antu ko way Sénégal mu ngi noonu quoi nit ñi duñu xam tey da ngay fekk fi ku woorul nga ne ko dox doo woon mu nga nga koy expliqué waaw waaw xoolal sa waay man ñi ma àndal dama am lu ma leer quoi man dama am yaqin di la xulli ay bët yaqin yaqin boo woorul ñëw def nga jàmm yaqin booy dee dem safara la ila nga fekk ku dul julli nga ne ko sa waay yow moo la doo julli yow ku baax la mais lu tax doo julli sa waay man nag du ma julli nag lu tax parce que di la jéem a expliqué nga koy wax mu ne la non munoo xoolal bul bul sonn munoo fexe ba ma julli ndeysaan yonent bi li tax yàlla di wax ak moom naan ko tilkal qura naqussu alayka min anbaiha li tax yàlla di wax li yonent bi mooy tasliya xam ngeen luy tasliya mooy yàlla day dalal xelu yonent bi bëggul yonent bi mer parce que yonent bi bëggul nit ñi dem safara mu taxaw di wax ak yonent bi naan ko ah bëgg nga gars yi dugg àjjana trop waaye ñii nag ñoom bu yeboo nga noppalu ñii safara lañ jëm ndax mënoo leen waar ba ñu dégg lépp loo leen bëggal lu baax tamit soo leen ko waxee day dugg ci nopp bi génn jaar nii dem bu yeboo nga noppalu ñii mënoo fexe ba ñu mucc moo tax yàlla ne yonent bi yi dëgg la sonn nga ci woote bi bokkaalekat yi lu ne ñu ngi la koy def ñu ngi la koy wax ñi féeteerlu waaye nag bàyyil xel ne li ngay bëgg lu baax yëpp ñii mënoo leen génn ci kufr gi ñu nekk mënoo leen génne ci bokkaale gi mënoo tax ñii ba duñ dem safara te yàlla ne ko tilka alqura naqussu alayka min anbaiha tilka lële lële ngay seen kër yu daanu yële étage yu màbb yee ville yee nga doon dégg démb ñu la koy nettali mooy nitu nuux nitu aad nitu samuud nitu luut kër yooyu ngay romb ñu daanu wala ngay dégg ci histoire ñu la koy wax tilkal qura yi nga xam ne na qussu alayka maa ngi la koy nettali tey ci alquran min ambaiha ma lay jox xabaar yi min axbaariha ma lay informé naan la nitu saalix nitu luut góor jigéen ña keroog ba ma leen di mbugal dëkk yooyu lu tax ma lay jox xabaar yi lu tax ma lay nettali histoire yonent ya naka lañ doon wootee seeni nit ci ngëm yàlla ci tawxiid ci topp yàlla ñoom yonent yooyu bañ ñëwee nuux huut saalax luut bañ ñëwee ci dëkk yooyu di woote lan la nit ña tontu nuux ba mu ñëwee yàlla ne inna arsalna nuuhan ila qawmi ba mu ñëwee noo moom nuux lu mu wax fa qaala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru jaamu leen yàlla waay bàyyi leen li ngeen di def bàyyi leen bokkaale yi bàyyi leen photo yi ngeen di takk seen dënn yi bàyyi leen photo yi ngeen di raay naan damay barkeelu bàyyi leen estati yii bàyyi leen xërëm yi ngeen yett def ko ci seen biir kër yi bàyyi leen béjjén yi ngeen takk ci seen ndigg yi tekki leen xërëm yi ak téere yi tekki leen lam yi bàyyi leen néew yi ngeen di sulli ngeen kennal yàlla lu ko gaa yi wax yàlla mu ne jaalu asaabiahum fi azaanim ni lañ def jël seeni loxo tëmbal ci seeni nopp yemuñ ci de ñu jël kaala yu muur ci bopp yi ki- léegi ngay wax ak nit mu def nii nu mu lay dégge ah wastaxsaw siyaabahum wa asarru yemuñ ci sax ñu ngand ngandalu génn nañ loxo yi muuri nañ bopp ñu ne ko waaw waxal xoolal waxal fii ba suba waxal ba dee booy ñun mënoo ñoo changer quoi yemuñ ci lool de ñu woote réunion ba dëkk bi ñëw ñu ne gis ngeen paa bii ngeen nu dafa màggetoon ndax nu dund na junni at yu manqué juróom fukk alf sanatin illa xamsina aman kon gudd na fan de dafa màggetoon ñu woote ñu ne gis ngeen paa bi ñu ne waaw ñu ne yàlla da koo alak moo tax du dee ku ñëw rek da ngay dem bàyyi ko fi moom bu leen ko topp de lu mu mun a wax nga gis borom kër guy dee gis nga paa bi man fii laa ko fekkoon man ak samay maam ñoo ñëpp dee nañ moom mu ngi fi yàlla da koo alak bu leen ko déggal nu bi mu sonnee ci ñoom mu daal di tàllal yàlla ay loxo ne ko rabbi laa tazar alal ard min alkafirina dayyaaran innaka in tazurhum yudillu ibadaka te yow yàlla maa ngi yégal ne ñii wala yalidu illa fajiran kafaran moo mun a ñaan allahu akbar moo tax yonente bi dafa séddale woon sahaaba yi mu ne sama sahaaba yi am na ci ñoo xam ne comme nuux la mel mooy Umar ibnul Xataab am na ci koo xam ne mu ngi mel ne Isa Abubakrin Siddiq ndeysaan xam nga Abubakar moom Isa moom dane woon yàlla ñi say jaam lañ soo leen bugalee say jaam lañ boo leen bàyyee say jaam lañ yow yàlla bi nga ma yónnee xam nga man lu ma wax man yàlla xam naa li nekk xam nga li nekk ci man mais man xaw ma li nekk ci yow su fekkee maa leen waxoon man yàlla laa xam nga ko su fekkee man waxuma leen man yàlla laa xam nga ko allahu akbar nuux moom waxul loolu dana yàlla rabbi yàlla ne ko ah mu ne ko laa tazar bul bàyyi alal ard ci kaw suuf si day yaaran benn kër kër yëpp boomal na ñëpp dee laa tazar alal ard minal kaafir bul fi bàyyi benn kër benn kër yéeféer ñëpp nañ dee yàlla ne ko lu tax mu ne ko innaka in tazarum yow yàlla boo leen fi bàyyee yàlla ne ko ah mu ne yu dillu ibadaka dañuy réeral sa jaam ñi te wala yalidu duñ jur illa faajiran kafaar ay bandi la ñuy jur ay simbakat ak ay gaynde ak ay rappeur la ñuy jur reyal ñëpp illa faajir kafaar yàlla daal leen rek ndeysaan yàlla nettali loolu yonent bi pour nu nu ñaata at la woote alfu sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk nu di woote kenn gëmu ko yàlla di nettali loolu yonent yàlla muhammad pour tey su su ko yàlla yónnee ci ñun ñun ñu bañ koo gëm yonent bi loolu bañ koo métti parce que yonent bi xam na ne ku gëmul yàlla bu dee dee dem safara yàlla di wax yonent bi yonent ya bañ ñëwee di woote seen woote lan lañ ci daj seeni xeet lan lañ tont ñi ngand ngand lu ci jaamu yàlla yàlla fan la mujjeek ñoom moo tax yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam tilka lële ngay gis ay qura ay dëkk la yoo xam ne na qussu alayka maa ngi la koy nettali nettali dafa baax nettali ñu lay nettali histoire lu xewoon démb day baax ci yow dëkku sàngam wala nitu sàngam jigéen sàngam góor sàngam nangam la defoon nangam boobu lii moo am lan moo tax nettali histoire baax mooy rabtul maadi min al xaadir dañuy jël démb buñ la ko nettalee nga teg ko tey nga jël tey préparé ko suba moo tax nettali baax yàlla nag ci mbaaxam moo nuy nettali xeet yu njëkk ya la ñu defoon lànkal yàlla yàlla mbugal leen nettali yooyu ñun buñ ko déggee ba pare mbokk yi lan moo ñu ciy war dañu war a nangu wala dañoo war a bañ bu fekkee am nañu xel dëgg-dëgg mooy danoo war a nangu kon del nekkal yàlla tabaraka wa taala ndax kat ña lànkaloon yàlla yëpp ba leen yàlla jàppee mbugal na leen firaaw naa ngoog amoon na doole buur la woon amoon na alal amoon na kattan amoon nay pexe amoon nay mën-mën waaye ba ko yàlla jàppee fa nabasnaahu fil yammi yàlla da ko nëq ca ndox ma doolem jépp muy jaay ba ko yàlla jàppee da ko labal ci ndox kon yow booy jaay doole xamal ne rek fi firaaw na mujjoon ngay fujj namruud daa reewoon ba dof ibrahima di ko waar gëmal yàlla mu ne ko ana yàlla mu ne ko mu ngi kaw asamaan mu ne dama koy rey jël fitalam tiire asamaan si pan pan rey naa ko yenn borom xam-xam yi sax yi ëppal dañ naan bi mu tiiree kaw asamaan ne day rey yàlla yàlla daa taw deret mu ne jam naa ko mu toog ba ci yàgg mu gis ay yax yu fënax yu wàcc mu ne nëpp na dee na kon yàlla amatu fi maay yàlla xam ngeen yàlla lan la ko booleel pour wax ko doo yàlla yoo yoo allahu akbar gis nga sooy ngand ngandul yàlla lu ndaw la lay booleel booy ndaw ndawlu nag yàlla booleel ak lu ngand waaw yoo xam ngeen yoo soo ko ëffee mu dee boo ko tàccoo mu dee yoo yoo ëf sax rey na ko ëf yoo day daw doo day dee dootul dawati allahu akbar benn yoo la yàlla jël rek dugal ko ci biir nopp yi fan yoo bi dem ci digg bopp bi naan su yoo bi di def noonu dootul mën a toog day mbëkk miir yi kan kan kan kan kan su ko su mbëkkee ba sonn yàlla ne yoo bi ne tekk yoo bi ne tekk mu commencé te moo ne woon mooy yàlla moo waxoon mooy yàlla yàlla boole koog yoo allahu akbar yoo moo tax yàlla day joxe alquran di ci yoxe yoo ci suratul baqara yàlla naan ah ci suratu baqara yow bi fan la ban aaya la inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma allazina amanu fa ya'lamuna min rabbihim wa amma allazina kafaru fa yaquluna madha arada allahu bi hadha mathala ya'lamuna yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran waaye wa ma yudillu bihi allahu akbar yoo yoo la ko yàlla booleel muy mbëkk miir yi di mbëkk miir yi di mbëkk miir yi ba mu sonn mu ne xam ngeen lan la gars yi naa mu ne defar leen benn bopp or ngeen dagg sama bopp bi sampal ma bopp or bi ñu woo tëgg yi ñu dajale urus yi dajale xaalis yi tëgg yi commencé defar bopp or ñu defar bopp bi ba mu rafet ba muy tàkk di melax ñu ñëw ne ko bii rafet na mu ne bii baax na yii nag da ngeen koy indi bu ngeen daggee rek ngeen jël bi poose ko ci ndeysaan allahu akbar ñi daal di indi bopp bi jegeel ñi woo technicien yi ñi woo ñawkat yi ñu mën a ràbb indi puso yi indi wëñ yi teg caas yi ñu ñu woo borom jaasi ji moo ne woon mooy yàlla yàlla bu ñuy dagg bopp bi waa ji ñëw rek dagg bopp bi pam deret ji sànni ñu jël bopp bi di ko ci teg mënut a ànd mënul ànd ñu bës bës mënul ànd ñu ne eh xam nga lan la buñ sonal suñu bopp kii dee na nañ ko suuli. ana yàlla mu ne woon maa yàlla moom moo ne woon mooy yàlla amoon na doole de mu ne maay yàlla yàlla wan la loolu kon nga xam ne yow mënoo xeex ak yàlla yemal ah karaté kaa nga da ngay kën fu ceinture noire taekwondo yemal malakal mawti bu ñëwee sa kën fu yooyu di nga réglé li nga xam ne mënoo kën fu malakal mawti waaw benn waaye dafa ñëw ci benn sëriñ mu ne ko damaa bëgg nga dénk ma ndax man mii sama mbir daa doy waar mu ne ko ñett dong laa lay dénk mu ne ko waaw mu ne bu njëkk bi mu ne bul dee de bu malakal mawti ñëwee waxal deewuma mu ne ah loolu kon moo ko mën malakal mawti kan mooy xëccoog moom naan ko deew mu ne kon bu malakal mawti ñëwee da ngay dee mu ne waaw mu ne kon nag góorgóorlu nga jaamu yàlla kam xam nga ne da ngay dee mu ne bu ñuy dekki bañal waxal jóguma waxal jóguma ban dekki waaye lan mooy dekki waaye man dekki wu ma waaye ah, mu ne ko ah loolu mënul nekk ku dee da ngay dekki mu ne ko comme da ngay dekki kon préparel sa dekki préparé ko mu ne bu ñuy taxaw ci kanam yàlla nag bañal waxal taxawuma mu ne yii tamit loolu ko ko ñeme mu ne ah yawma yaqumu naas li rabbil alamin mu ne loolu mënuma ko foog ma taxaw ci kanamu yàlla mu ne kon préparel taxaw bi préparel yooyu dañ koy préparé tey jii bu ñu ne woon da ngeen dem stade huit heures ci suba ba neuf heures ci guddi bu ñuy dem dañuy préparé wala duñ préparé da ngeen ma wuyu dañuy seetaani Balla Gaye day bëri ji ñun ñëpp da ngeen dem waa jumaa ji da ngeen di dema kaar yi dañ koy gaare ci buntu jumaa ji da ngeen di préparé wala du ngeen préparé léegi gars yi dañu préparé imaam yow loo soxla ma ne ma indi leen ma siis ndax su ma demee bu ma amul place ma toog ah na ngeen may indaalee la ndox mu sedd ah du loolu da ngay préparé léegi nag yow nga jëm àllaaxira nga ne doo préparé ba pare yaa ngi dem voyage boo xam ne sans retour boo demee doo ñëwaat ndeysaan oustaz bi ñu doon jàngal xadis yonent bi alayhi salaatu salaam muy Cheikh Ibrahim Kan bu Malik al na ko yàlla fay mu ne bi ñuy jàngal xadis bi mu ne man yonent bi nee na man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu min annaar ku ma fenal yonent bi nee na ku ma fenal bu yeboo nga xam ne di nga yàgg safara di nga fa yàgg bim ñu koy firil o wi nelaaɗo wi kala mo fen fenanimi andu ko jaygol paaɗa saɗa yaha naworɗo jooɗiɗa o wi kala ɗo jahata aɗa wiye naworɗo jooɗiɗa sifti ko firti ko a ɓooyat toon naworɗo jooɗiɗa haade darde wardema allahu akbar fepp foy dem fépp fooy dem maa ngi dem ñu ne la yóbbaaleel fooy toog yaa ngi dem fenn ñu ne la yóbbaaleel foo toog looy dégg ci loolu lan ngay dégg ci wax ji mooy da nga faa nar a yàgg yonent bi nee na ku ma fenal buy dee ma buy dee mu yóbbaale ban bu mu toog parce que safara la jëm te dana fa yàgg xoolal ñuy fenal yonent bi fii ci kaw suuf tey yonent bi nee na da waxuma dara gis naa yonent bi biig da ngay tàqali ko kenn rek nga xëy suba gis ko ci télé bi mu naan gis naa yàlla biig démb maag yàlla ñoo nekk ndoo woon ci moom laa ndogoo ñii dañuy gis yàlla tey ñii ay yàlla lañ ay yàlla yàlla ngay gis sax tarixa yàlla yàlla allahu akbar yàlla yàlla nun ay yàlla lañ yow yàlla nga verre yi yàlla la portable yi yàlla la table bi yàlla la ah yàlla yàlla la ah yalt ah dafa am yàlla ak yalti ah xale yu ndaw yi ñooy yalti ñooy yalti yi allahu akbar ah bon loolu de lu bees la bii de moom dégguma ko woon subhanallah yalti yàlla ak yalti ah ñu ndaw ñi ñooy yalti yi mooy yàlla yu ndaw yi ana yàlla yu mag yi ñooy mooy ñun quoi ñun ñooy yàlla yu mag yi inna lillahi wa inna ilayhi loolu kufru la wala qad qaalu kalimatal kufri ku ne man yàlla laa rek yéeféer nga doo yàlla di yow léegi nga dee yow da ngaa juddu Isa ak yaayam bi nit ñi ne Isa yàlla la yaayam yàlla la xam nga yàlla lu mu leen tontu mu ne Isa ak yaayam kaana yaakulaani taam ñoom ñaar dañ doon lekk dañ daan lekk ceeb ku lekk ba pare après 24 heures boo ndogoo soo demee léegi nga naan bisaab nga naan jinjeer nga lekk bees doore nga boole ci benn kaasu café nga dem julli ji nga ñëw ñu tagal la ginaar nga dóor boo ànd ak couscous wala petit pois nga lekk ci ba ne këg nga tëdd naan ñaari kaasu ndox nga tëdd ba 3 heures du matin sa biir bi mu ne kurr foo jëm moo lay wan ne doo yàlla awana allah ummu kaana yaakulaani taam boo lekkee ba pare ki naan yàlla la yàlla nee na da ngay lekk ku ne yàlla la da ngay lekk soo lekkee ba pare ba nga naan xam nga ne doo yàlla moo tax dañoo yabaata ñi naan man yàlla la yàlla boo xam ne yow am nga jabar bu guddee bu guddee mu futti la ba nga set yàlla boo xam ne bu guddee jabaram futti ko kooku yàlla la ah wala ñii fex fii ay yàlla ñu amuñu jabar am nañu ay jabar da nga ci gis ka xam ne 15 jabar la yor ne yàlla la dañ leen ragal yàlla dañ bàyyi reewande gi yéen yi reewande kese la billaahi du réer de reewande xam ngeen reewande yenn yi reewande kese la wér nga am nga tuuti xaalis taalibe yi wër nañ la amoo loo leen wax munoo jàng alxuraan munoo jàng hadis munoo waaraate nga ni leen may yàlla loolu kese la gars yi jànguñu de jànguñu dara dara lañ jàngul jànguñu tus tus tus jànguñu ko bu njàngee nañ génn ci mbedd yi def ay conférence nit ñi déglu leen nañ waar jaami yàlla yi jànguñu duñu doo ci gis xalifa général buy jiite juma du jiite jàkk du def conférence yunus nee na ok mu juuri tan juuɗe ɗe ne ɗaatina wayno juuɗe mbomri kangani ni déedéet du ma ko wax ci olof gars yi nañ dem jàngi pulaar séeréer suba dinaa leen làkkal naa su ma demee su ma demee tey ci guddi dinañ ma jàngal séeréer ma soo ma ñëwee wax leen il il faut ñu il faut ñu comprendre loolu nit ñi dañu war a jàng suñ la nee kilifa diine nga yonent bi bi mu nekkee kilifa diine nu mu def daawul tëdd di nelaw ndeysaan dafa sukuraat sax mu feebar mu sukuraat yonent bi nekk sukuraat ndeysaan mënul toog ndax xam responsabilité bi mu yenu saxaaba yi toog ay fan gisuñu ko ñu jékki-jékki dafa feebar ba mënut a taxaw mu jékki-jékki rek ndeysaan saxaaba yi mu ne Aboubacar dama nga jiite Aboubacar mënul jiite mu ngi taxaw di jàng alquran waaye mu xool place bi mu doon taxaw place Muhammad la Aboubacar mënu koo continuer mu taxaw di jooy saxaaba yi ñu ngi taxaw ci ginnaawam ñëpp a ngi sëng jàkka jàng toj ay riir ñëpp a ngi jooy ndax gisuñu yonent bi ñu jékki-jékki ñu jékki-jékki dégg sàppe yi di riir ndeke yonent bi lañ jàppoo ali jàpp ci mbagg ndeyjoor uxayli jàpp ci mbagg càmmoñ yonent bi tànk yi di direeku ñu indi ko ba premier sàppe aboubacar sentir na yonent bi dugg na jàkk ji mu bëgg arrière yonent bi ñëw ba ci wetam ne ko nii an atimu salaa mottalil julli gi ne ko nii munul wax de mu ne ko nii ñu julli ba pare ndeysaan yonent bi toog jàkkaarloog saxaaba yi nii ma jàkkaarloog yéen mu mu leen di xool mu ne leen ndax da ngeen a ragal ma faatu lan ngeen xam ci jaam boo xam ne yàlla tànnuloo na ko ñaar mu sax ci àdduna du dee wala mu ñëw ci moom mu dugg aljanna ndeke yonent bi alayhi salaam xam na ne day dee waaye buggu fee bàyyi buggu fee bàyyi ay caaxaankat munul tëdd nelaw munul tëdd fi mu tëdd mu jóg muy xool lim fi bàyyi ndeysaan fan la ko bàyyi mu xool saxaaba yi ñoom ñoom ñoo ngi sëngam tël ndeysaan ñoo ngi am tegginu alxuraan jàkka jaa ngi ne salaw mu ngi leen gis mu ngi leen yar comme ni mu leen yaree woon ñoom ñoom ñu ngi ne tekk yonent bi saa salaam ne leen nii ngeen di mel ñeen fukki at nii ngeen di mel kenn ci yéen du takk téere kenn ci yéen du takk gàllaaj kenn ci yéen du ñaan naan yaa baabakaar yi ñeen fukki at tawhid ngeen di ci ñeen fukki at tawhid ngeen di am mu ne ñeen fukki at yi bu jeexee juróom fukki at juróom benn fukki at li ma fi bàyyi woon yax tawhid bi ma fi bàyyi woon dina am ay dëkk dina am ay dëgg mooy jullit yi ma fi bàyyi woon dina am ay bokkaalekat ci biir mu ne ko waaye juróom benn fukki at yi ak ñeen ak ñeenti ñeenti at yi boo boolee ñeenti at yi ak juróom benn at yi bu jeexee lu ciy tegu nekk junni at mu ne ko amatul ci yéen kuy jaamu yàlla ñëpp ay bokkaalekat la ñuy doon te loolu mooy li ni dal xeet wi nekk ay bokkaalekat yu dul jeex ay bokkaalekat yonent bi saa salaam noonu lañ ko jëlee waatee ndeysaan saxaaba yi di yuuxu ñu jàppoo ko lëng ko dugal ko biir néegam keroog la gëj a génn ba ni mu génnee àdduna génnaatut ci suba bi su altine Aboubacar ñëw tàggu ko ne ko maa ngi dem sama kër gu ndaw gi après maa ngi ñëwaat Aboubacar dafa jekki foofu mu dem rek ñu woo ko ne ko yonent bi génn na àdduna saxaaba yi di yuuxu ñu muur yonent bi ci néegu Aïcha la génne àdduna ñu muur ko sër Aboubacar daw ñëw fekk am na ci saxaaba yi ñoo xam ne nee na yonent bi du dee naka la ko yàlla di yónnee muy dee yonent bi xaritu yàlla la ñii ne ku ñu dégg yonent bi nga ne yonent dee na danañ la rey ku mel ne Omar jaaseem la gàddu rek mu ne ku ne ku ne yonent bi dee na rek ma dagg sa baat yonent bi kan moo leen waxoon dee na yonent bi lu Moussa defoon la def dafa dem waxi jéeg Moussa rek 40 jours day ñëwaat Aboubacar ñëw fekk fu mu tëdd mu daal di dindi muuraay bi daal di koy fóon fii ci jëbi ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah tibta hayyan wa mayitan bi ngay dund da ngaa leer neex xeeñ rafet bi nga deewee moo raw bi mu ko muree lumière moo sànni ci kanam gi mu fóon ko ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah mu daal di génn moom Aboubacar mu fekk saxaaba yi ne teg taxaw mu ne leen man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana yaabudu allah fa inna allaha xayun la yamut wa ma muhammadun ila rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqibay ala aqaabikum wa man yanqalib falan ya allah ak Umar dafa teg jaasi ji mu ne ah lii aaya la ci alquran man de aaya bi musuma kaa dégg lan la yàlla wax Aboubacar wax ku doon jaamu yonent yonent faatu na ku doon jaamu yàlla yàlla du faatu yàlla nee na ci alxuraan Muhammad nekkul lu dul yonent maa ko yónni woon ndax moom bu deewee wala mu faatu rek da ngeen di delluwaat ci seen ceddo ga seen kufur képp ku delluwaat ci kufur doo lor yàlla dara dara nga du lor yàlla Omar teg jaasi bi mu ne Aboubacar li aaya la Aboubacar mu ne ko aaya la mu daal teg jaas yi toog di jooy ndeysaan kon su fekkee ne loolu am na ñun ñu toog fii di fo di caaxaan yonent bi faatu nan lañ ko sangee nan lañ ko suulee balaa muy faatu waxoon na naka la benn saxaaba ñoo ne ko yonent boo faatoo naka lañ lay sangee ñen ñoo lay sang naka lañ lay jullee naka lañ lay suulee mu ne bu ma faatoo bun may sang sama yére kenn du ko simmi ci kaw yére yi lañ may sang na ma diw ak diw sang sama waa kër ali ak ñoom uqayl ñoo ko sang mu ne buñ paree na ngeen ma génne ngeen teg ma ci buntu jàkka ji fa awalu man yusalli alayya habibi rabbul alamin ki may njëkk a jullee mooy sama borom borom asamaan ak suuf moo may njëkk a jullee mu ne su paree jibril moo ci tegu su paree israfil mikail su paree yéen saxaaba yi ku nekk na ñëw jullee ma par kenn kenn loolu fan lañ ko amee loolu kat moo ko am fii sunu borom subhanahu wa taala nee na walaqad jaa'athum rusuluhum bil bayyinaat yonent yi xeet yooyu ngeen doon dégg walaqad ca dëgg-dëgg jaa'athum dikke na leen rusuluhum seeni yonent bil bayyinaati ci ay lay yu leer yu ne fang yàlla alagu leen pour ëpp leen doole déedéet yàlla alagu leen pour mën leen nitu aad nitu samud nitu saalax ñoo ñëpp yàlla alagu leen pour da leen ëpp doole déedéet seeni yonent ñoo ñëw wax ba sonn nit ña ne kacc këccaaral mel ni nun wa laqad jaathum indi indil na leen dikke na leen rusuluhum seeni yonent bil bayinaat bil xujaj ci ay lay yu leer wal barahin ak ay tegtal addaalati ala tawxidillahi wa sidqi rasulihi yonent yi yàllaa leen yónni ñu ñëw indi ay preuve yu leer nañ nañ nañ ay lay yu ne kenn waaye nit ña lànk ne duñu gëm yàlla nit ña lànk nekk ci seeni maam naan ñun suñu maam la mu nekkoon ak ñun xamuñu lii ak ñun lii diina ju bees ak nangam ak nangam yàlla nee na ma alag leen fa ma kaanu li yuminuun yonent yi bañ ñëw wax ba sonn yàlla mu ne nit ña fa ma kaanu nekk ñu li yuminuuna di gëm waaw koo wax mu ne man sama suñuy maam xamuñu loolu mi ne mi ngandaa ɗuum ɗum min tawan ɗo mawɓe ɓe ina waɗa ɗum a ko wax mu ne ñun xamuñu loolu fekk ñu loolu fii dëkk bi di ko def kenn du ko fi defee allahu akbar yàlla nee na maalag leen ndax ab yonent moom su ko yàlla yónnee ku ku mu ñëw waxal ba pare nga bañ a gëm nga xam ne alku nga dee rek bëggul yàlla day wàcc sa kaw benn dëkk dong la yàlla mës a yónni yonent mu ñëw yàlla baal dëkk ba alagu leen mooy qawmu yunus danañ ci ñëw léegi ci kanam nitu yunus yàlla yónni na yunus mu ñëw di leen waar waa dëkk ba lànk yunus ne yàlla mbugal leen mbugal gu yéex yunus gedd daal di dugg gaal ba mu duggee gaal gaal gay waaj a lab nit ñay waaj a dee ñu ne gaal gi am na ku tooñ boroomam ku ci nekk nuñ koy xamee ñeneen lañ def ay wure noonu la loterie nañ loterie ku nekk indi bant bu ñu sànnee bant yi ku sa bant jaaxaan rek yow la ñu sànni bant yi bant yunus daal di jaaxaan ñu gaay yi daal di koy jàpp ne ko yow yaa tooñ sa borom balaa nga ñuy rey nag ñu rey la ñu jàpp ko tëmbal ko ci biir géej gi biñ ko tëmbalee yàlla ne benn jën bu tudd xuut na ko wann fal taqamahul xuut wa huwa mulim ndeysaan muy ku ñu yedd ñu sànni ko rek jën bi ne ko karaas dugal ko ci biir bi moom it ba mu nekkee ci biir ba mu naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yàlla mu ne falawla kaana min almusabbihin cëy bu sàbbaal woon la labisa fi batnil huut ila yubasun waaye mu nekk ci biir jën bi naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az moo tax bu ñu la laajee benn laaj ne la benn néew boo xamante ne néew bi ci biir jën la wala bàmmeel boo xamante ne bàmmeel bi da doon daw ak néew ba bu ñu la laajee bàmmeel boo xam ne borom bàmmeel bi néew néew bi bàmmeel bi da doon daw ak moom ban bàmmeel la waxal yonent yàlla yunus moo nekk ci biir jën gi jën bi nekk ci biir géej gi mu nekk fii zulumati salaasa ci ñetti lëndëm lëndëmu mbaq lëndëmu butit lëndëmu géej mu nekk ci biir di tudd yàlla naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin moo tax borom moo xam ne loo tooñ tooñ tooñ tooñ tooñ tooñ yàlla ñaan bi boo ko defee yàlla baal la soo bëggee yàlla baal la say bakkaar deel wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin boo koy wirdu yàlla di la baal jën bi yàlla ne ko demal ba tefes nga goqi ko xam ngeen goqi ah mooy nga wàcc ko mu dem ba tefes daa di koy wàccu yaram bi daa di lax tàngaay bi ci biir moo jàpp yonent yàlla yunus yaram bi lax yàlla mu ne ko foofu fu nga wàcc saxalal naa la fa benn garab bu tudd naajo naajo xam ngeen naajo ah da nga koy lekk da nga koy lakk ba mu ñor nga lekk lenn li nga diw ko ci seeram bi léegi di nga delloowaat ni nga mel mu nekk fa ay temps di ko def ba wér yàlla ne ko demal dellul dëkk ba ma la yónni woon mu daal di dellu mu fekk dëkk ba yëpp dañoo gëm yàlla ba muy dem daa geddoon fekk ñëpp ay yéeféer lañ bu muy ñëwaat fekk yàlla tuubal na dëkk ba yëpp mu ñëw fekk ñu ne ko yow lañ doon xaar ñun ñëpp gëm nañ ne yàlla kenn la yow yàllaa la yónni moo tax moom dong la yàlla mës a yónni yàlla nar a alak xeetam mu gedd moom yonent ba dem yàlla daal di koy nattu daal di tuubloo waa dëkk ba ginnaawam moo tax ñu ne daa yi kuy woote ci yoon yàlla warul gaaw a mer da nga am patience am yaakaar sa woote ànd ak yërmande nga muñ yenn yenn saa yi sax ngay woote ñu saaga la yenn saa yi ngay woote ñu xas la ñun yenn saa yi ñu jot ay lettre ay menace de mort waaw bàyyi li ngay wax nañ la rey ma lettre yi ma denc kenn xamul nu mu toll yenn saa yi ñu woo la téléphone nga yaakaar ne dañ laan la kaay ndogu ñu ne la yow léegi ñu waaye yow rek tudd sa ñaari tew nga ne ah ah kooku de am naa tiyaaba tey ku de benn tiyaaba la enregistré naa ko kuy woote ci yoon yàlla dafa metti de waaw léeg-léeg nga dajak ay nit ñu kereel la ay problème léeg-léeg ñu xas la léeg ñu saaga la léeg-léeg ñu menacé la léeg-léeg sax ñu jàpp la tëj la kaso ndax am na ñu nekk ci kaso yi waaw léeg-léeg am ñu rey la am na yoon ñu rey su ngeen demee Arabie Saoudite mu nga fees del kaso yaa nga fees del ak borom xam-xam yi bu ngeen demee Égypte rey nañ borom xam-xam yëpp rey nañ leen ñëpp a ngi ci armée li tëdd waaw ngeen demee Europe Europe ngay kereel ñoom taarix Ramadan ah du dëgg ndax lan wax wax ci yëfu yàlla moo métti parce que am na ñoo xam ne pare wuñu pour nit ñi jaamu yàlla ñoom dañoo bëgg jaam ñi nekk seeni jaam soo leen waxee libéré leen jaam ñi jaamu yàlla ñu ne yow mi man ngay wax yu nekk ni li ñuy tafsir yëpp chaque jour bu ñu waxee rek am na ku nekk jàkka ji naan kii man lay wax ni ma la waxee laay waxee sama bopp wax keneen alxuraan la alxuraan bàyyul kenn damay wax sama bopp wax yow mii wax kee wax kële wax ku ñëw wax ku ñëwul wax dëkk bi yëpp wax sëriñ yi wax nguur gi wax ñëpp parce que alxuraan la waxu yàlla la mu ngoog suñu borom nee na fa maa kaanu liy uminuun nekkuñu di gëm dañoo lànk weddi yàlla bi maa kazzabu ndax ca la ñu weddi woon min qablu démb dañoo weddi lànk yàlla wax ñu lànk ne gëmuñu abadan allahu akbar fa maa kaanu li yuminuuna bi ma kazzabu min qabl ay lam yakun ulaika alhaalikun haalikun min ahli alqura li yuminuu bi ma kazzabu bihi fi ilmi llahi yàlla xamoon na ne ñii duñu gëm moo tax ca azal mu def loon ay yéefir moo tax ba yonent yi ñëwee waaraate ñu ne ko bul sonal sa bopp soo waxee ba dee it ñun sunuy maam yi li ñu nekkoon duñ ko bàyyi waaw ndax yàlla xamoon nañu ni ñii duñu gëm wala yàlla kaste seen xol waaw yàlla xamoon na ne is ilmullahi annahum la yuminuun fa kataba zalika alayhim yàlla xamoon na ne ñii duñu gëm ca azal xamoon na ne ay yéeféer la ñuy nekk munoo fexe fexe fexe fexe fexe fexe fexe ndeysaan am na benn waay nee na dafa am ku ko ne dama bëgg a tuub mu ne ko waa dégg naa la mu ñëwaat ne ko damaa bëgg a tuub mu ne ko dégg naa la mu ñëwaat ne ko damaa bëgg a tuub mu ne ko suba dinaa la jëlsi mu xëy suba di ko jëlsi mu ñëw fekk ñu baas buntu kër gi mu ne lan la ñu ne ko diw moo dee yàlla bëgg ko mu tuub gis nga am na ñoo xam ne yàlla moo kaste seen xol yi safara lañ jëm kenn mënu ci dara boo leen yóbboon ba màkk it xoolal xoolal sénégalais bi dem ba màkk ñëw dajale waa këram ñëpp toog mu ne leen màkka daal ku bëgg a toroxal nit rek moo ko fa yóbbu ku ma déggati fi nga ne ma màkka dinaa la waay yow nee na ngeen ma bëggoon toroxal moo tax ngeen yóbbu ma màkk loolu la leen tontu keneen ki dana tëll benn waaye ne ko ah ndeysaan yow de yaa ngi mel ne allah ji diw mu ne bu ma ko waxati mu ne ko non lan la xanaa bëggoo dem màkk mu ne ko bëgguma faa dem lan laa fay uti man dinaa fi romb tiwaawoon pël di dem tu fële màkk dinaa fi romb sàngal kam di dem màkk ba nga waxati ma ko rek waaw gis ngeen kon am na ñoo xam ne yàlla moo tëj seen xol yi boo leen yóbboon ndeysaan am na jigéen joo xam ne am na jigéen joo xam ne dafa xërëm wujjëm fa liggéey wujju bi wujju bi dof souffrir après daal di dee moom mu daal di am xaalis mu ne day dem màkk day tuubi loolu mu def mu wàcc avion jëm màkk mu ñëw dugg ci biir kaaba gi yàlla téye bët yi mënul gis kaaba gi su génnee mu gis su duggee ci biir du gis day ñëw ne ana kaaba gi ñu ne ko mu ngi nii mu ne gisuma ko man de gisuma ko ana mu gisuma ko bu génnaatee mën a gis ñëpp gis nit ñi gis oto yi gis tout su duggaatee ci kaaba gi du gis kaaba bi bu yeboo ñu jaamu yàlla mbokk yi ñu bàyyi caaxaan bàyyi fo yàlla fowul foluwul ban aaya la yàlla ne fo leen aaya bu yàlla ne fo leen yaa ayyuha allazina amanu ilabu laibu yàlla ne na wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yabudun la illa li yalabun innama illa li yabudun wa ma xalaqna alsamawati wal ardi wa ma baynahuma laibin asamaan ak suuf binduñu ko pour fo nit ak jinne binduñu leen pour fo lu wax tey ñuy fo afa xasibtum annama xalaqnaakum da ngeen yaakaar ne dama leen bind pour caaxaan da ngeen yaakaar ne ni nit ñi caaxaan moo tax yàlla nit ñi fi caaxaan ku def loolu perte nga bañ yaakaar ne duñ delluwaat ci yàlla di fo ëllëg yowmal xiyaam du baax mbokk yi suñ borom nee na ci lii mu ñu wax ci ñii nga xam ne yàlla moo ko neex mu ne kazalika nii yatba'u llahu la yàlla tëje la yàlla kaste ala qulubil kafirina ci xolu yéeféer yi gis ngeen moo tax ab yéeféer day yàgg rek day métti day sori waaye du gëm yàlla ndax yàlla moo kaste xolam yàlla kastewul xolu yéeféer nag ci hasard bal dafa xam ne ñii dañoo tànn ak kéeféer moo tax mu tëj seen xol borom bi nee na fama wajadna fekkuma li aksarihim min ahdin li ëpp ci nit ñi fekkuma leen ca la ma waxante woon ak ñoom fama wajadna li aksarihim min ahdin lan mooy ahd bi mooy keroog caalamul arwaax bi yàlla di bind jaam ñi di leen dugal ci ndigg baay aadama yàlla dafa dajale ruux yëpp ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom qaalu bala ñun ñëpp ñu ne ah kay yàlla suñu borom yaay suñu borom yàlla daal di jël ruux yi dugal ci ndigg aadama ne aadama dem leen ci kaw suuf ñoom ñoom nangu nañ ne maay seen borom suñ demee dinañ ma jaamu danañ ma kennal danañ sellal danañ topp sama ndigal bàyyi samay tere ñun ñu daal di wàcc ci kaw suuf affaire yi commencé neex ah seytaane daan ñuy róofu ñu commencé naan waaw waaw est-ce que yàlla am na sax te ñoo ne woon kat ban yàlla ne ndax duma seen borom ñu ne woon ah kay yow yàlla yaay sunu borom loolu mooy ahd bi ahd bi mooy ñaatee la yàlla wax wa awfu bil ahd innal ahda waaye lan mooy wax ji mooy fama wajat naa fekkuma li aksarim li ëpp ci nit ñi ci ahdu boobu ñu waxante woon ak yàlla mooy buñ demee kaw suuf yàlla danañ la kennal danañ la sellal danañ la jaamu danañ la bakk danañ la tagg danañ la kañ ndax yàlla yaay sunu borom ndeysaan ñu daal di wàcc àdduna daan ñuy këf seytaane daan ñuy këf bakkan daan ñuy këf ñett ñi ñoo tax nit bañ a dem ci yàlla bakkan à part bakkan àdduna à part àdduna seytaan doomu adama bi bi ne cëpp bakkan ne ko njëkk a róof ne ko yow yaa ñàkk fayda yow ngay xale bu ndaw xale bu góor ngay borom doole nga war ko teg ci temps bi nga war a branché wu quoi ngay booy disco nga war a bonde bakkan a lay wax loolu kañ dem jaamu yàlla mu naan la non xaaral ba nga nekk paawaay paa yi nga gis nii ñu ne ah mu ne non paa yi ay boy disco lañ wala ay boy town lañ ñoom ñëpp léegi dañoo màgget commencé wut ay kurus quoi doog a dem jàkk xaaral ba nga màgget nga mel ne ñoom xanaa gisoo jàkk ji ngay dem yow dong yaa fay booy ñi ci des ñëpp ay paa lañ lala la bakkan bi di wax soo buggee bañ mu ne la déedéet di nga yow est-ce que yow xam nga ñaataat nga war a am nga ni ko déedéet mu ne yow war nga am 60 ans te yow léegi 30 ans nga amagum xaaral ba ci kanam soo toogee léegi nag ba nga xam ne kii nga nga doog a tuub nag nga doog a dem jàkka ja mun nga sax nodd nga nekk bilaal bi loolu la seytaane di wax bakkan loolu la lay jugal moo tax alxuraan ne bakkan an nafs képp ku topp bakkanam xam ngeen yàlla bi muy wax bakkan ci alxuraan ñetti bakkan la indi nafsun lawaama nafsun ammaara nafsun mutmainna nafsun ammaara mooy wama ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi Yusuf waxoon na man mënumaa setal sama bakkan ndax bakkankat yàllaa ko bind ci bakkaar moo tax gis nga yàlla indi koor pour bakkan daa di laab yàlla bi mu bindee bakkan dafa ne ko bakkan yaay kan bakkan ne ko yaay yàlla maay bakkan day ngeen de yàlla jël bakkan dugal ko safara ay at génne ko ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yàlla maay bakkan yàlla dugal ko aljanna ci sedd bi ay at génne ko ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yàlla maay bakkan yàlla xiifloo ko ñetti fan ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yàlla maay sa jaam moo tax bakkan pour nga defar ko foog nga xiifloo ko gis nga tey bakkan yi bi ñu leen xiifloo rek am na ñoo xamante ne daaw lañ ko yoon fii tafsir ñëwaat nañu ren baal leen ma de am ñoo xam ne daaw lañ ko joon jàkk booy kañ nga gëj a julli non ramadan daaw quoi waaye ramadan daaw daal laa gëñoon ci mosquée bi quoi mais temps yi commencé wan na quoi ah bon parce que ramadan ñëw na parce que xam nga lu tax bakkan bi gis nga bakkan soo ko woorloowee mu xiif rek boo ko julliloo mu julli boo ko yee mu yeewu boo ko jàngalee alxuraan mu jàngal alxuraan moo tax bakkan li koy yar mooy koor gis nga tey dëkk bi ñëpp a jub c'est parce que bakkan yee yaru mais bakkan bu suuree nekk ci lu ko neex day bew fa amma man taxa wa asara alxayata addunya fa innal waaye wa amma man xaafa maqama rabbihi wa naha nafsa bakkan baa ngo wa naha nafsa anil hawa képp ku tere sa bakkan ba neex fa innal jannata hiya almawa ajjana rek nga jëm direct imaamul busayri nee na an nafs ka tifli nee na bakkan comme liir la mel liir dañ koy feral ci soow ku feralul sa bakkan doo dem waat bi gën a gudd ci alxuraan lan lay wax qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba yàlla nee na ku setal bakkanam texe na ku taqal bakkanam tilimal ku so perte nga gars yi bakkan yi foog ñu yar leen bakkan nan lañ koy yaree mooy woor moo tax même bu koor jeexee yow mi bëgg a yar sa bakkan del woor lundi del woor jeudi del woor ayaamul biid le 13 le 14 le 15 del bëri looy woor wallahi ku bëri lu muy woor bakkanam du bew ndax bakkan koor dong ma mun ci moom dara julli munu ci dara saraxe munu ci dara aji màkk munu woor rek soo wooree rek bakkan bi yaru ndax soo wooree bakkan bi dafay bëgg a xool lu mu war ta xool nga ne ko da ngaa woor xoolal fi yow mu ne waaw waaw man damaa woor kay mu bëgg a déglu nga ne ko doo déglu da ngaa woor mu ne waaw waaw mu bëgg a wax nga ne ko doo wax da ngaa woor mu bëgg a dem nga ne ko foo jëm mu ne ah nga ne ko xanaa woor may wax nga dëgg gis nga bakkan koor dong ma mën ci moom dara moo tax bakkan bi ko yàlla wo xiifloo ba mu sonn yàlla ba mu ko ne bakkan yaay kan da ko ne maay yàlla yaay sama boroom maay sa jaam gis nga waaye ba nga xam ne woorloowu ko da ko ne yaay kan mu ne ko yaay yàlla maay bakkan di ngand ngandul waaye ba mu xiifee trois jours yàlla mu ne ko bakkan mu ne ko mu ne ko yaay kan mu ne ko maay sa jaam mu ne ko man maay kan mu ne ko yaay sama boroom gis nga kon nañu xiifloo suñu bopp ngir yàlla ndax suñu bakkan yi mën a defarwaat mbokk jullit yi sunu boroom subhanahu wa taala mu ne fama wajadna li aksarihim min ahdin fekkuma li ëpp ci ñoom ñu nekk ci dig giñ ma waxoon lañ waxoon yàlla mooy ay jaamam lan lan waxoon yàlla mooy danañ la topp lan waxoon yàlla mooy danañ la wéetal lan waxoon yàlla mooy danañ sellal ngir yow lan waxoon yàlla mooy danañ topp sa téere danañ topp sa yonent loolu lan waxoon yàlla waaye lan mooy mbetteel mooy ñun ñëpp ba ñu ñëwee ci kaw suuf ñu daal di sànni lan waxoon ñu daal di topp bànneex Ibnu Abbas nee na digg mooy lañ jëloon ca yonent ya mooy an yaabudullaha waxdahu wa yutiuhu wala yaasuhu danañ topp yàlla danañ ko kennal duñ ko moy loolu mooy ahd bi léegi nag ndax diggoogu ñu waxoon nag borom bi tabaraka wa taala ba léegi ñu ngi ci borom bi nee na ñi ci ëpp ci ñun nekkuñ ci wa ma wajadna li aksari min ahd li ëpp ci nit ñi ci seeni bànneex lañ nekk lan najid li tilkal umam allati ahlakna wa hum qawmu nuux wa huud wa saalix wa luud wa shuaybu lam najid li aksarihim wafa bi ahdihim allazi axasnaahu alayhim ram bi nee na xeet yi wéer su woon sax la ñu waxante woon ak man fekkuma ko ceeg ñoom nitu nuux nitu huud nitu saalax nitu luud nitu shuaybu ñoom ñëpp la ñu waxante woon ak man ca azal kenn ci ñoom jëfewu ko kon la xew lu ci des mooy wa in wajadna aksaruhum la fasiqin allahu akbar wa in wajadna man yàlla dama fekk aksaruhum li ëpp ci nit ñi la fasiquuna ay kàccoor lañ ay saay-saay lañ allahu akbar moo tax ci alquran aksar boo gis la ca yàlla teg baaxul bëri yéen ñi nga xam ne mbooloo moo leen tax a jóg mbooloo ndax da nga naan ay ñoo foofoo ko bëri mbooloo amul njëriñ yàlla soxlawul mbooloo waaye yàlla sox lu mu soxla ah mooy lu ndaw lu ko topp affaire bi du lan qualité waaye du quantité waaye lan la qualité waaye mbooloo mee ko bëri foofu boo fa demee wuu dañuy rey ay nag rek ñuy dëxin am na mbalka boisson am na robinet caakiri foofu gaa yi ñoo bëri amul njëriñ xam nga lu am njëriñ nga nekk ci dëgg yàlla soxlawul mbooloo mu bari ndax yàlla nee na la ëpp ci nit ñi wa in wajan naa fekk na aksaruhum li ëpp ci ñoom la fasiqina ay kàccoor lañ ay saay-saay lañ ci suuratu yusuf yàlla nee na wama yumin aksaruhum billah illa wa mushrikun li ëpp ci nit ñi bu ñuy gëm yàlla dañuy gëm yàlla nekk ay bokkaalekat gis nga aksar baaxul bëri bëri ñun nag tey bëri la ñuy xool wuu tut tut tut cinquante deux car deux millions car la ilaha illallah ñëpp a ñëw président ñëw na ñoom diw ñëw nañ premier ministre président assemblée premier xaw ma sénat ñëpp ñëw nañ loolu day tax loolooy dëgg ñooñ ñëpp mën nañaa ñëw ba pare fi ñu ñëw du nekk dëgg kenn mën naa am dara kenn bañ a ñëw fekk yow li nga nekk mooy dëgg dëgg benn nit sax mën na cee nekk benn nit du ngeen fàtte ne yonent yi bi leen yàlla yónnee ñu ñëw di waaraate ñoom ñaata lañ woon benn yonent mooy ñëw dëkk ba yëpp weddi leen kan moo nekk ci dëgg ñoom wala nit ña ah jàng leen suratu yaasin da ngay dégg yonent bu ñu yónni mu dem ci dëkk di wax nit ña bañ yàlla yónni waat beneen yonent ñu nekk ñaar yonent ba ñëw di renforcer pour nit ñëgam ñoo ñu weddi yàlla yónni waat beneen yonent ñu nekk ñett yonent yuy woo benn dëkk ñett yonent yuy woote ci benn dëkk wala loolu du yaasin ay lan la ah wadrib lahum masalan ashaabal qarya is jaaha al mursaluun is arsalna ilayhim statayni fa kasdabuhuma fa azazna salis ñoom bañ ñëw lu ñu wax fa qaalu inna ilaykum mursaluun ñu daal di jàpp ndeysaan ak xolal ba ñu weddee yeneen yonent yi ñetti yonent benn waaye moo ñëw naan dëgg la de ñii yàllaa leen yónni dégg leen lu muy wax ñu daal di koy rey yow da ngaa sob ñoon ñu wedd yow nga ñëw naan gëm leen ñu rey ko dañ ko reyee gars yi dañoo yaakaar na perte na waaja dugg àjjana ndeysaan dañ ko rey rek mu dugg àjjana mu nekk biir àjjana ndeysaan tëdd ci njagenaayam qaala yaa layta qawmi yaalamuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin dañ ko rey rek yàlla ne ko qiila duxulul janna duggal mu dugg commencé xéewlu mu ne gars yi de ndeysaan dañoo yaakaar ne dañ maa rey ndeke yé ñii waay yéex nañ waay ay ñii yéex nañ maa rey waay dañ ko rey yaram bi suulañ suulaguñ ko yàlla ne ko duggal aljanna qiila duxulul janna mu dugg naan ak a neexoon nit ñi xam lañ ma defal qaala yaa layta qawmi yaalamuun bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin ña ko reyoon wa ma anzalna ala qawmihi min baadihi min jundin min alsama wa ma kunna munzilin yàlla nee na bañ ko reyee wàccewuma ay soldaar ñu yor ay pistolet jóge kaw asamaan naan ratatatatata di rey déedéet lan laa def in kaanat illa sayha benn malaaka laa yónni rek mu ñëw taxaw di xaar suba ñu yeewu balaa ñuy ubbi kër yi naan dañuy jëndi mburu dañuy segg café malaaka bi xaacu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee kon mbir mi du problème mu mbooloo problème mu dëgg la aaya bi nee na wa in wajadna aksaruhum la fasiqun lépp ci nit ñi ay kàccoor lañ Seyd Xawaa rahimahullah day wax ne bu ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee suñu aaya bi tey fu mu jeexee yàlla nee na ñu ëpp ci nit ñi ay kàccoor lañ te yow nga bokk ci nit ñi est-ce que waroo xool sa bopp foo bokk yow yàlla nee na ñëpp ci nit ñi ay kàccoor lañ man kay kon dinaa xool sama bopp ah yàlla ñii ma wax maa man bokkuma ci mbaa bokkuma ci kàccoor yi su fekkee ci laa bokk ndax damay continuer noonu ba dee wala damaa war a tuub moo tax ay alquran kenn du ko jàng rek tilka alquran naqussu alayka min anba'iha wa laqad jaa'ahum rusulun bil bayyinati fama kaanu liyu'minu bima kaddabu min qabl rek di dem déedéet lu ñu wax tamit tel que lale alquran dëkk la naqus no ngay nettali alayka ci yow min amba ya ca xabaar ya loolu loolu mooy la loolu ban firi la yan di ko de déedéet dañ naan tekk di def taamul setantal aaya yi jàng ko dégg ko enregistré ko sunu kër yi ak sunu xel yi yàlla nee na wa in wajanna aksarahum la fasiqin la ma fekk nit ña la ñu waxante woon ak man ñi ëpp ci ñoom ay kàccoor lañ kenn nekku ci boo déggee loolu nga xool yow ndax bokkoo ci ñooñu yàlla di wax su fekkee dañ cee bokk nga jëm cee génn léegi nga tuub wallahi boo ci deewee wallahi yàlla ñi muy tëkku ci alxuraan ku repp ci ñun fii ba dee ci loolu bu yeboo nga xam ne pare nga sa sa laaxira yàqu na mbokk yi danoo nekk di dund te sunu dund ci loxo yàlla la nekk nekkul sunu loxo sunu dund yi sunuy ruu sunu bakkan ci loxo kan la nekk sunu bakkan ci loxo kan la nekk ci loxo yàlla da ngay dox rek ñoo ngi nii tey ñëw nañ tafsir suba yàlla la neex ndax dinañ ñëwaat wala duñ ñëw ñoo ngi nii di woor yàlla moo xam ndax déwén danañ wooraat ñoo ngi nii tey toog di tafsir est-ce que yàlla moo xam déwén kan mooy toog fii tafsiraat ndax man dinaa fi tafsiraat ndax yéen ñiy toog fii di ngeen ñëwaat toog déglu loolu ci loxo yàlla la nekk moo tax ñu war a góorgóorlu sunu kemtalaayal kàttan sunu digganteeg sunu borom ñu ñu rafetal ko waa ji nee na comme dañuy bëre te ki ñuy bëreel mooy yàlla te moo nu mën kon nanu combine bëre bi wala tey bu ñu ma boole woon ak bam bombardier ñu ne ma oustaz da ngay bombar da ngay bëre ak bombardier de jour korité loo bëgg nag dinañ la ko fay ma ne waaw ma ñibbi sama kër toog ah ma bombardier ma mën de du loolu lay xalaat fu ma toog wala léegi nag nan laay def damay tëral ay pexe yu ma ci génnee rek bu ñëwee rek ma song ko te daal di toog def kaat appi dama koy song rek toog balaa kurfe ñi di dal ma toog ma ne nii toog ñu ne daaneel nañ ko du noonu kon ñun xam na ne ñun nit dañuy combattre yàlla la ñuy combattre te yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg xam na ne danañ tër suuf benn mbër daa ñëw ci benn sëriñ ne ko ñaanal ma bu ma daanu mu ne ko ne naa ko ñaan mu ubbi mu ubbi mu ubbi fenêtre bi ne ko xoolal armeel yi mu xool mu ne ko ñii ñëpp mbër mi leen tëral boo dajeek moom nag mbër mi tëral ñii ñëpp boo dajeek moom nag ah boo duggee ci armeel yi nga gis mbër yi yàlla tëral leen ndeysaan amoon na koo xam ne moo dàq karaté ci àdduna nu mu tuddoon ah anamu du ngeen tontu anamu amoon na koo xam ne moo dàq box ci àdduna anamu anamu amoon na koo xam ne moo dàq judo ci àdduna anamu du ngeen ma tontu yéen amoon na ki dàq taekwondo ci àdduna anamu amoon na ki dàq daw ci àdduna anam ah amoon na ku gën a rafet ci àdduna anamu amoon na ku ëpp alal ci àdduna anamu bu ngeen di seetaan télé am na benn seenu télé boo xam ne dañuy wax aqwa rajul fil alam ki gën a dëgër képp doole ci àdduna bi chaîne boobu loolu lay teg aqwa rajul fil alam képp doole ci àdduna bi dañuy chaîne dañuy chaîne avion freiné ko mu xëcc avion bi mu ñëw am na doole wala amul doole ñu teg oto freiné ko këj mu xëcc ko oto bi ñëw ñu ne aqwa rajul fil alam nga gis leen ni ñuy def ñuy kan moo gën a ngande ku gën a ngande ci àdduna nga gis ñu ran ñuy seet kan la pour mooy jël mooy nekk champion du monde kooku bu dajeeg malakal mawti kan mooy xëcc moroomam moom mooy xëcc malakal mawti wala malakal mawti moo koy xëcc yii ñuy gis nga yii ñuy def ni ay doole ay daw ay champion du monde ay moo fi gën a rafet moo fi gën a nice moo fi gën a jantal moo fi gën a beau ah moo fi gën a moo fi gën a balakal moo ti xoolu loolu boo demee ci armeel yi di nga gis ku la gën a rafet ndeysaan boo demee ci armeel yu Pikine yi di nga fa gis benn armeel bu ñu def photo ñu bind ci armeel yi waa waa ji daal di bind yow mi may nuyu si ngallawaaye bul ma romb te ñaanaloo ma bul ma romb te ñaanaloo ma yow mi taxaw di ma nuyu si tey di ma visité si bul ma romb te ñaanaloo ma allahu akbar gars yi néew yi tey bu ñu leen fekkoon ci armeel yi ne leen kaay leen ngeen dem ngeen woor da ngeen di woor de ëy yaakaar naa ne buñ ñëwee fii duñu woor weeru koor kese kon nañ leen góorgóorlu suñu darsa tey fii lay jeexee ñoo ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu